arante ñu dalal sunu gan El Hadj Alioune Diouf euh, salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay gërëm ci teewaay bi di. nuyu Georges Déthié Diop El Hadj Alioune Diouf mos nga fee nekk directeur commerce intérieur ndax euh, sa xam-xam mi ngi màcc ci wàllu enquête économique commissaire aux enquêtes économiques nga euh, di tàggat euh, ay ndongo ca ENA école nationale d'administration di leen tàggat ci wàllu économie internationale laaj bu njëkk bi nag dafa jëm rek ci gouvernement bu bees bi ak premier ministre bu bees bi li ñu sumb te euh, président du la république sant leen ko ngir ñu wàññi dundu gu seet gi gis nañ ñuy ñuy sàkki pexe sàkk pexe yooyu nag du lu bees Sénégal est-ce que jàpp nga ni fi ñu fi ñu téye foofu la est-ce que dana jur dara dëgg-dëgg. Euh, asalaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu di kontaan ci laaj bi ah bu ñu sañoon dey euh, coono ji nga xam ni waa Sénégal. Eh, nekk nañ ko ci njëggu cher gi bu ñu sañoon loolu day ah, gën a oyof loolu ko waaye eh, gouvernement bi ki ko jiite mooy Macky Sall Macky Sall bañ koy fal li mu jiitaloon mooy affaireu njëg gi ba mu ñëwee la mu njëkk a def moo doon waxtaan ak euh, commerçant yi nga xam ni surtout ñoom ñoo nekk UNAPES ba mu mel ni dañu tënkaloo pour jéem a xeex inflation pour fexe daal ba njëg yi wàññeeku waaye bari na ay association yoo xam ni am nañu compétence yu def ay études dal di wax keroog ca biir présidence ku mel ni Kanouté wax ne bu ñu ko saytoo njëg yi wàññeeku wuñu ni ñu war a wàññeekoo man nag li ma constaté mooy ci àddina bi yëpp njëg yëpp a yokk ndax lu baree bari. France de fan yi moom yëngu na ay manifestation ci seeraayu dund bi. pouvoir bi dafa wàññeeku xam nga bul jàpp rekk ne wàññi naa ceeb bi walla wàññi naa diwlin ji Euh, euh, euh, nañ ma sant déedéet ndax lépp a yokk maanaam tey pour liñ naan pouvoir d'achat gis nga li ngay fayeeku par weer la nga ci daan mën a am mënatoo ko am ndax njëg gu metti kon li ñu war a xeex effectivement bari na am na ñoo xam ne boo ko seetloo seen salaire la ñuy fay ci lowaas rek daanaka de weesu na genn wàllu salaire gi wala wala jël na salaire bi yëpp kon nag nañu gën a xeex lu bare bare bari euh, njëg yi si la waaye du njëgu denrée yu mag yi rek du njëgu ceeb beeg diwlin bi lépp moo yokku te loolu ci sama gis-gis du caagi nag rek àddina bi moo euh, moo nekk ci crise waaw loolu de la dafa am spéculation gouvernement gouvernement yi loolu la ñuy loolu la ñuy lay. dafa avant avant crise yi di am Sénégal. Mhm. lii ñu fiy gis nii gisoo gisoon nañ ko te crise amul. lu yaas bu seer marché bi lu neex waaye jaaye loolu moom yàgg na fi. Euh, réew mi ci sama gis-gis war nañu gën a am fulla ak fayda gis nga dama ni la euh, dañ ni bukki bu yebee mbaxambaane ca doxin wala mënuñoo nekk nag ak ay commerçant wala ay importateur yoo xam ni yokk rek lañ fi nekkee dangay gis koo xam ne benn yoon lay indi marchandise am waaye ci at mi dina ko yokk ñetti yoon ñeenti yoon saa yoo waxee mu ne la conjoncture bi guerre Ukraine bi guerre commerciale entre la Russie entre la Chine et les États-Unis euh, Covid bi lay bu ne dinañ ko indi lay rek lañu fi nekkee lay lay lay lay guddeeg bëccëg loolu da gouvernement bi waru ko nangu ni mu ko war li mu ko ni mu ko war a bañee mooy gouvernement bi man dama xamul lan moo tax ba ñoom ñu fàtte lu bare bare bare mais ndax réew mi ci ni mu tëddee am na fi ñoo xam ne am nañu compétence pour xam lu ne lan la war a jar nañu jël mbir mi xool ko xool lu ne war na lan la war a jar waaye doo woo ñi nga xam ne ñoom ñooy importaté ñoom ñooy importé di woo ñi nga xam ne ñooy indi yëf yi di woo ñi nga xam ne ñoo tax njëg gi yokk nga leen di woo di leen laaj nan la ñuy def pour wàññi njëg yi mais ñoom duñu la wax mukk nañ koy def kon da nga jàpp ne dañuy fausser le jeu dès le début ci concertation yi mais da ngay fausser le jeu da ngay fausser le jeu de la concurrence parce que état bu fekkee moom moo fixé prix amatul concurrence euh, mi ngi mel ni jëlal secteur yi am na lu ëpp 600 boulangers Sénégal donc c'est un secteur boo leen bàyyee ñu def loo xam ni dana jëmale réew mi kanam da nga leen di jàppale parce que am na ñoo xam ne wane nañu gagné nañu coupe euh, Afrique ci ci ci ci wàllu ci wàllu mburu ndax xarañ ci defar mburu mais nañ leen jàppale nañu financé fexe ba ñun mburu mi ñu ciy def par exemple lu mel ni dugub di ci def suñu euh, di ci def suñu ñambi di ci def suñu suñu suñu maïs ak yeneen ak yeneen dañuy inventé maanaam du ñu jël rek li nga xam ne moom la tubaab yi di def ñu jël ko bëgg ko def suñu réew war na ñoo mën a xool leneen. lu ñuy defee tubaab yi sax dañuy defar yeneen xeetu mburu yi bokk ak fëriñ di ko lekk mais xam nga lu tax ñu gagné ñun euh, lu tax boulanger Sénégal yi gagné woon coupe coupe d'Afrique bi mais c'est parce que ñoom ci seen mburu mi dañ ciy def tuuti gerte maanaam da nga ci toqal tuuti tige tege gis nga bu boobu nag la jury bi xamuñu woon ju euh, jury te ñu gagné final réew mu mel ni Égypte te Égypte moo inventé pain kon nga xam ni euh, am nañu ñu xarañ ci côté boobu donc bu ñuy wax consommer local bu ñuy wax secteur privé. dañ leen war a jàppale amul fenn ci àddina bi foo gisee secteur privé bi moom mooy am xaalis milliard di ko non banque koy lebal dañ koy dañ koy dañ koy topp di ko lebal di évaluer tamit li muy def di xool li muy def ndax li muy def jaadu na ak li nga xam ni moom la réew mi bëgg a def. bokk na ci yoon yi nga xamante ne ñu ngi koy gëstu ngir wàññi njëgu yenn jumtukaay yi jaarale ko ci tv bi wala frais de transit yeeg euh, frais bancaires yi est-ce que loolu mën na prospérer. waaw loolu loolu loolu loolu pist la loolu wax dëgg euh, ci ci sa njëlbeen loolu rek nga mën a njëkk def pour pour pour wàññi waaye loolu dama doon wax maanaam mooy subvention subventionné rek dama doon wax nañu moytu nañ moytu loolu parce que lu ma xam la am na yoo xam ne mënuma ko wax ndax doolu du responsabilité mais dama ni su fekkee état dafa bëgg di subventionné nañu xam ne Sénégal ñu bari ci réew yi yi ñu wër fii la ñuy jënd seen marchandise bu ñu subventionné kon tamit xamal ne ñu ngi subventionné ñi ñu wër Sénégal yëpp. le revers de la médaille maanaam. loolu te loolu yàgg na loolu dafa mës a am yàgg na boo nekkoon ci zone frontalière. lu tax duñu tere marchandise génn bu dee ciment bi dañ koy tere mu génn. Euh, mais mënoo ko tere mu euh, génn. parce que ci ay loojo ci ay gaal nga koy def génn donc dinañ jàpp dañuy jàpp toujours. ay ñoo xam ne dañuy transférer ay produits yoo xam ne dañ ko subventionné euh, loolu moom mënta ñàkk parce que dafa amul fenn ciment bi loo ko mënti jënd Sénégal boo demee bitim réew jaay ko fa ak bénéfice bi ma nekkee directeur ay tubaab mas nañ ma woo bëgg ne dañoo bëgg a dañoo bëgg exporte Sénégal ciment ma ne leen waa d'accord c'est libre bu neexee bañ ma laajee prix Sénégal ciment ba ma leen ko waxee gëmuñu ko on compétitif sur le ciment. amul kenn ku ñemee importer exporter ciment Sénégal kon nag ñun suñu ciment ñëpp koy soxla bu fekkoon ni tey Afrique dafa amoon compagnie naval amuñu ko amul benn pays africain bu am une compagnie navale diñ de ce nom su fekkoon ni ñun tey am nañ ko am nañu capacité Sénégal mën na dem ba dix mille tonnes plutôt dix millions de tonnes mën nañ dem ba produire lu mel noonu parce que ku ne ci ñaari cimenterie yu mag yi. war nga mën a weesu trois trois trois tonnes ou trois tonnes cinq trois mille tonnes cinq trois millions de ton cinq cent ku ne mën na koo def suñ ci yokkee dàngo te xëy na mën nañoo am dix millions te xëy na marché Sénégal bi au total au total trois trois millions cinq à moins ku ñu am ay programme yu am solo peut-être ñu dem ba quatre millions donc mën nañoo exporter lu ma six millions de tonnes mais loolu il faut ñu am tamit compagnie navale bu ko mën a bu ko mën a bu ko mën a dékku. Hmm. sinon kii day coûter tellement cher que finalement kii transporte sax mooy gën a gagné cimenterie bi pour wane rek ne euh, industrie locale war na fee mën a am secteur privé bi am na si ñoo xam ne wax dëgg ay jàmbaar lañu am nañu euh, sañ-sañ am nañu xalaat am nañu xel mu rafet. waaye am am na ci ñoo xam ni tam seen liggéey amul qualité góor wu ñu itam nekk ci secteur privé bi. am na ci sax ñoo xam ni ñooy spéculateurs yi ñooy yokk njëg yi ñooy def euh, saa yu leen saa yu saa yu leen euh, gendarmerie police wala commerce intérieur wanee ginnaaw ñu yokk mbir yi am na si ñoo xam ni wax dëgg neexul ba neexul mais ñooñu ñu jara surveiller lañu te dañ leen war a teg. mais yow ñi ñi yéen ñi cadre euh, contrôle économique yi ak ñi ngeen liggéeyandoo boo leen boole yee ñëpp bu ngeen bu ngeen matul juróom-benn téeméer ci réew mi. contrôler dina dina dina compliqué trop ci ci Sénégal pour xool marché yi ku ne la ngay jaayee. contrôler c'est vrai dina compliqué mais nag da nga koy jox moyen li ma mënta nangu Sénégal soo ko seetlee ñaar fukki at yi weesu da ngay gis ba tey ñu wane président de président taxaw ci ay ay téeméeri téeméeri oto ay téeméeri téeméeri pick-up di maye gis nañ fi ñuy maye bay maye ay sportive ak ay façon bu ne ñu koy maye Sénégal rek ngay gis. fonctionnaire bu ñëw jënd palaasu état tabax fa immeuble boo xam ne état sax amu fa euh, puqus bu baax bu mu mën def ay service am loolu am na Sénégal c'est inacceptable réew Sénégal li fi am c'est inacceptable dañuy bàyyi nit ñi ñuy def lu leen neex loolu c'est pas possible c'est pas normal mënuma gis réew un petit fonctionnaire ëpp doole réew ma ëpp doole état bi ah man de li ma jaaxal boo. duggee ci am na service yoo xam ne boo duggee ci ci biir askan wi. Babacar may ma ma wax benn mhm. affaire bu ma jógee. da ngay gis service yoo xam ni boo demee fekk fa ñu nekk kenn du leen naw bu leen fa fekkee nan ngay mën a gisee service commerce intérieur boo xam ni fa mu nekk ca dëkk ba mooy fa gën a fa gën a. moo gën a ñaaw fa gën a ñaaw. loolu ah, mënta nekk demal demal police mbaa gendarmerie rek nga xool. anam yi ñu liggéey service commerce boo duggee léeg-léeg euh, day pënd siis yee yàqu taabal yee damm. mais loolu mënta ah. dañuy war a am fulla am fayda si mais nu ñu mën a comprendre tamit askan wi ni ñu sonnee fii nu toll mhm. boo xëyee gis borom kër yi ni ñuy jaaxle mhm. mais boo tourné gis ñeneen ñoo xam ne rawat na ñi nga xam ne ñooy politique te nekk ci nguur yor alal dul jeex déséquilibre boobu yow da ngay politique itam euh, euh, loolu moom est-ce que dana mën a saafarawu Sénégal parce que alal ji dafa féete boor te ñi yor nguur ñoo ko jël euh, te du lépp la ñaq lijjanteeg sàkkal pexe ak randal xaalis ci la Babacar loolu Sénégal yëpp ñaawlu nañu ko dañuy xeex ndóol ci lañ jóge di wax da ngay gis ay programme ñu teg programme yu am solo jël xaalis bu am solo def ci mais nu jox ko benn waay mu def lu ko neex loolu mooy ñàkk fu ndax nangu ku doyee di di la teg lu mu la warta deg loolu jaaduwul mënuñoo nangu jël suñu xaalis jox ko benn nit mu jël ko lekk ko di xool nit ñi di di ñu ñaawal sax léeg-léeg gis ñoo xam ne dañ lay sax ñaawal maanaam dañuy wane ni maa yore affaire yi am naa kër gu rafet damay dugg ci oto yi rafet samay doom di def lu leen neex am na ñoo xam ne dañ leen di jox ay poste mais seeni doom nekk ci dëkk bi def lu leen di neex loolu du ay détail mais loolu ay réalité la yoo xam ni day révolter nit ñi day indi problème ci réew mi loolu war nañ ko xoolaat war nañ ko xoolaat Sénégal dafa mel ni ñi nga xam ne liggéeyuñu ñoo gën a tane ñiy liggéey mooy ñiy wax ne xaalis des ko lijjanti des ko liggéey loolu nag su amee ci am réew faaw mu am ay problème nañu góorgóorlu ba teg réew mi ci yoon woo xam ni képp ku liggéey ku ñaq jariñu loolu lañ doon wax ñaq jariñu mais mënuñu comprendre réew moo xam ni euh, parce que da ngay politique loo neex nga def mais loolu c'est pas normal c'est pas parce que da ngay politique que boo détourné xaalis ba service yi nga xam ne wax nañ ne yow détourné nga xaalis ñu lay ñu lay bàyyi di xool nungu sin nga war a dem loolu c'est pas normal loolu waruñu ko seetaan encore. tey lan mooy yoon yu gën a efficace ngir wàññi njëg euh, njëgu euh, li ñuy euh, jëfandikoo mën a wéy ndax subvention yi nga ñaawlu sànq ça ça etre peut être court terme. xam nga xam nga Georges agriculture marché agricole amul benn réew buy def agriculture pour exporter. amul benn réew buy bay ceeb wala ngay bay mboq pour le marché international amul képp ku bay pour sa marché national nga donc excédent bi moom ngay jaay à des spéculateurs à des négociateurs ñoo ñooy nekk di ko jaay donc c'est un marché spéculatif Sénégal nag importateur net de produit alimentaire la dafa bokk ci réew yi nga xam ne dañoo ndóol lépp lu ñu lekk dañ koy jéggaani loolu mënta wéy réew mu mel ni senegal war na ne ceeb dootuma ko jëli bitim réew suukar dootuma ko jëli bitim réew ganaar dootuma ko jëli bitim réew yàpp dootuma ko jëli bitim réew pomme soble dootuma ko jëli bitim réew ba ci carotte dootuma ko jëli bitim réew te yooyu dafay am ba léegi dañuy import sax ay lu mel ni ay carotte loolu dafa ni dafa loolu dafa xew wi réew muy jéggaani la muy lekk loolu xew wi na loolu xewwi na amul amul ci monde bi soo xoolee. réew yi ak ñi mandal de nee nañ loolu loolu bëgg a xeex waaye may ragal mu nekk ay waxi kese ba tuddee ministère agriculture léegi ministère naka souveraineté alimentaire. waaw xam nga loolu wax nañ ko waxati ko wax ko waxati ko xam nga nag nit moom boo waxee ñu weddi nga waxaat ñu weddi wax dëgg waxal leneen waxal leneen. gis nga boo bëggee bu fekkee loolu dafa bëgg am lu yomb la gis nga loolu il faut que nga soo waxee ñëpp gëm li nga wax da ngay commencer par yow man ma xaalis bi ñoo ko moom suñu xaalisu Sénégal la da ngay njëkk ne képp ku yore euh, euh, service public boo xam ne da ngay jënd ceeb interdiction nga jënd ceeb importe il faut ngay jënd ceeb local arme ceeb local présidence ceeb local ministère yi si ñeen ngay njëkk commencé képp kuñ fal dañ naa la ceeb local pomme de terre locale oignon local loolu la ñuy njëkk def comme comme waaye nag Sénégal def di réew moo xam ne même boo ne nit ñi nañu présenté seen nuñ ko tuddee sax déclaration de patrimoine duñ ko def ba pare ñu bàyyi leen ci Sénégal def di réew moo xam ne dañuy teg ay loi am ñoo xam ne duñ ko appliqué ba pare ñu bàyyi leen kenn du leen wax dara loolu moo jaaduwul réewu caaxaan la de ay ca loolu loolu moo loolu jaaduwul loolu nanguwuma ko xam nañ ne y a des yi nga xamante ne dafa jëm ci wàllu mbéy ceeb par exemple autosuffisance alimentaire euh, nguur gi nee na def nañ ci lu bëri mais est-ce que aussi ñi nga xamante ne ñoo am alal waruñu dugg ci li nga xamante ne moo di mbéy mi. wax nga dëgg. parce que ñoom du ñu dugg ci secteurs yi nga xamante ne mën nañ fa am risque. parce que dañoo amul lu leen leer. xam nga soo bëggee secteur privé dugg ci mbir mi da ngay prévisible li ñu naan prévisibilité. Mm-hmm. maanaam da ngay def loo xam ne xam nañ ni gëm nga ko. da ngay def loo xam ne ñoom duñ ci duñ ci duñ ci ñàkk mënoo ne ceeb local ba pare na ceeb importé bi duma ko dóor droit de douane du ko dóor droit fiscal loolu mënta nekk loo xam ni dañ koy importé kenn du ko transformé muy ceeb nga ni kenn du ci fay droit de douane parce que yow visa kii but politique nga am Sénégal loolu ko yàq depuis 2000 ba léegi même avant mille depuis 1990 ba léegi ba ñu fi déggee kilo ceeb 60 francs la ñëpp léegi objectif nit ñi ceeb bi dama koy wàññi lii dama koy wàññi du loolu mooy jëmale réew mi kanam. lii jëmal réew mi kanam mooy dama naan ceeb bu jóge Chine day fay droit de douane ceeb bu jóge Chine danaa fexe ba mu gën a cher fuuf ceeb bi nga xam ne moom lañuy ñuy bayee Sénégal képp ku nekk sénégalais bëgg a bay te suuf si ak sociétés yi nga xam ne ñooy liggéey ci aménagement yi nañ leen taxaw ñu def li ñu war a def bu fekkee dañoo tële tamit nañ dem seeti kilifa yi nekk ci réew mi am na kilifa yoo xam ne tey bu ñu leen demoon ne leen ah ñun ko dañoo bëgg ngeen jàpp ci mbayum ceeb mi buñ ci jàppee nga gis léegi changement am nga gis léegi changement am nañ leen jox ceeb euh, euh, hectares yu doy ñëpp bay ceeb dangay investir parce que ceeb du question bay ceeb rek transformer ceeb bi tamit am na ci solo parce que suñu baykat yu si ëpp bu ñu bayee ba am lu bare bari ci pat yi du ñu am xaalis buñ ko transformer léegi ñoom dañuy obligé dama lay jox ñaari saako nga euh, transformer fukki saako wala mais loolu arrangé wul nit ñi dañoo war a am un fonds qui leur bu ñu bayee mën a dem transformer ceeb bi. Mhm. ñu jeexale politique ndax euh, am nga mouvement xam ba xam soppee nga ko partem teet euh, mouvement engagement démocratique euh, waa ji ñu ne daa bëgg troisième mandat ab yéen kaay xëy nettal ne seen réunion bu mujj seen biir parti am na ñu jëfa jël kàddu ay kilifa naan ko waaw demal troisième mandat demal troisième mandat loolu noo ko gisee. waaw xam nga loolu moo ma gêné ci concertation yi xam nga bu ñuy wax concertation sur la vie ñëpp rafetlu nañ ko. concerté woo importateur kii ñu wax waaye dama fa dégg ay wax yoo xam ni euh, day niroog meeting politique loolu erreur bu mag a mag a ngi noonu cest à fii Sénégal toll ku fi nekk bëgg a foog ni da ngaa yaa gën a muus nit ñi da nga leen di jéem a nax da ngay nax sa bopp jàmm moo gën lépp réew mi nañu respecté suñu parole nañu respecté suñuy kàddu ñaari mandat la ñu waxoon na yem si ñaari mandat ku fi nekk nag bëgg indi fi débat ci Sénégal ci troisième mandat kooku yaa ngi bëgg indi problème ci réew mi. jërëjëf euh, El Hadj Alioune Diouf euh, jiite mouvement engagement démocratique nekkoon ay jamono euh, directeur commerce intérieur ngay jàngale commerce international ca ENA école nationale d' administration jërëjëf Georges jërëjëf Cheikh Tidiane mbokk